अनुसेशन le 11 mai 2020 le 11 juin du moins 2023 ndeysaan la mu cosaan lul seesen bi di bëggee Ibou lul ndeysaan borom lul di bëggee waa Djilass waa Njom Boor Fële Num waa Diop du ma la fàtte nga fekk jëloon naa ko ba Ahmed Samboor ndeysaan borom Sowal moo daa juum la flic dem day gay naa ko waaye kenn doo mën ngaa la ngor si bëggal ma ngaa la nga bëggal ma baal yooyu bisar ngañ seen tàgg na ko ndeysaan Mbaye Diouf borom Jaareer Mignane Diouf Xaar Diouf ndeysaan borom Saloum Séri Sanou Medoune Diouf docteur Firasa eh Babacar Faye Balak Mañ roog sa bopp mat Babacar Ndiaye yàlla lu dem eh ndeysaan Doni Diouf yàlla fim laa Doni Dioum ndeysaan di bëgg képp kuy suivre Ndindy Fall TV Ngagne Sène waaw Ngagne ko ngeen jëf sama gars yi